di la di lay jàngal di la xamal li nga war a def ak li nga wërta def comme tarbiya bi ñenn ñi tur yàlla lañ leen di jox ñenn ñi ci xaal lañ leen di tarbiya ci ni ma waxee aal ñenn ñi itam nag dañ leen di tarbiya di leen jubbanti bul def nangam ak defal nangam di wax ak ñoom directement ñuy dégg kenn ku ci nekk nag eh, eh, yàlla dogal na eh, ko jàkkaarloo moom comme day mel ni médecin boo xam ne rek dafa jàkkarloo ak jarak lépp lu nekk ci yow ci feebar dañ koy mën a xam man ko identifier man laa seetal la ko mën a faj kon xam naa ba gën nañoo gën a sori mais dañoo am ni ñu leen ko waxee mbokk mu wàññeeku wax nañ ne ñu ngi fii xëy na bu bu ñu demee xëy na ko euh, jullee ba noppi xëy na mën naa am bu fekkee ne situation bi mën naa am ñu dellu si bukki wuti ñu am fii ba beneen yoon kon ñu ngi jégul bu baax a baax waa kay jërëjëf sëriñ Xaadim ñu ngi koy sant bu baax ci leeral yu am solo yi nga xam ne mi ko doon leeral tàmbalee ko ci bind bi nga xam ne sëriñ bi da cee leeral ponk yi nga xam ne mooy ponk wilaaya ci niti gaa yu baax yi muy nit yàlla yi di sufiyanke yi arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun biha yu assasu bunyaanul wilaayaati kar naa leeral na ko leeralit ñeenti kene yooyu buñ ko waxee liñ ci jublu muy sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uslatun an suyuxin bil isaaraati leeral na dëgg-dëgg lan mooy sumtu ci nit yàlla yi muy noppi leeral na tamit al juucu at tawil muy xiif bu gudd anam gu am solo wane na sax yetu na ni saw mi dañ koy jublu di taqoo ak koor foogit mu taxaw ci ginaaw bi loolu jàllee mu ñëw ci al uzla muy beru ak anam yi nga xam ne ci la ko jàngatee muy benn mu nekk xalwa wala mu nekk i'tikaaf mu waree na tamit ci biir la mën na nekk ci muxiit daaxili wala muxiit xaariji per goo xam ne sa biir kër nga koy defee ak goo xamante ni ci bit nga koy defee ginnaaw bi loolu jàllee mu ñëw ci nga xam ne mooy usulu tariqil mi keno yi nga xam ne ci lañ tabaxee yoonu tasawuf mooy tawba tuub taxaw na ci xaw fu mooy ragal taxaw na ci leeral ko raja kadalika taxaw na ci iktaaru xosnin baril njàqare taxaw na ci arridaawu bil qada taxaw na ci ak sukru ba mbooleem kenn yooyu jeex ginnaaw bi loolu jàlle mu ñëw ci lawaazimu tariqa muy fukki mbir yi nga xam ne képp ku sóobu ci yoon tasawuf dafa mënta ñàkk nga sàmmoonte ak yooyu muy am maqsad muy jubluwaay muy objectif am tamit li nga xam ne moo di dalil mooy giddi boo xam ne da lay di la teg ci yoon am tamit warukaay muy mataaya ba ñi nga xam ne noonu la limee mbooleem fukki yooyu nga xam ne mooy lawazimu tariqa tasawuf ginnaaw bi mu jàllee tamit mu ñëw ci fi nga xam ne sëñ bu mag bi radiyallahu anhu ñëw na ci di leeral gaa yooyu nga xam ne ñooy gaa yàlla yi wane ni nga xam ne noonu lañ mel ay boroomi xam-xam la doon ñu sàmm la ñuy doon ay sëriñ la ñuy doon waaye sëriñ soosu tamit ni nga xam ne noonu lañ wuutee am ñoom dañuy yar nit ki ci di ko jaar ci yoon tarbiya am ñoom dañ koy yar ci wàllum xaal kon ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee woon leeral ne leeral lee na ko nu kawe su njort xëy na ngànt daf ko dab moo tax mu dem kon dañuy jébbal kàddu gi suñu waajur sëriñ Moustapha su ko defee moom mu eggale li des ci tomb bi wala mu sànni ci kàddu yoo xamante ni xëy na dina jëm ci tomb bi nga xam ne ci la sëriñ xaadim doon waxtaane ak ñun bismillah jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax sëñ Xaadim ci waxtaan bi faram fàcce gi leeral gi macha allah dara des leeral na ko leeral goo xam ne eh, ku ko déglu rek boo noppee wax dëgg yàlla mën nga cee jëriñ te loolu lañ soxla woon ci njàngale bi ndax jotaay bi du ay conference am njàngale la ku ne mën ngaa yor sab téere añ na rek damay dàq koor waaye damay jàng ndax téere bi nga xam ne mooy xoqal bu kaaw ku nekk nitu tasawuf rek war mu koo xam rawatina nag ku bokk ci yoonu murit bu ngeen gisee yu baree bari di am ay jafe-jafe ci yoon wi léeg-léeg ñi nekk ci biir yoon wi ñu ci bari dañoo xamul fi yoon wi jëm jànguñu ko dañoo fab ni ma ko gisee rek kenn ku ne daal sëg nekk ci yoon wi mooy ni ko gisee waaye kenn bokkut ak sa moroom na ko gisee sam xel nga ciy wéy te diine ak tarixa yépp ñoo bokk yam la ibu sidna Abubakar waxoon nag inna diinana mabniyun ala naqli laa ala mutabaqati al maanaam lu sa xel dangu rek nga ne loolu la loolu mënul su caa defar diine mënul su caa defar àdduna ci ñu nekk sax mu ñu bàyyi woon réew mi tey du am loi du am lenn programme du am lenn luñ tëral dañuy bàyyi nit ñi kenn ku ne rek ne man ni ma xalaatee nii la ñëpp kenn ku ne di doxal ni la neexee kon fantaisie loolu rek mooy am waaye dara lu dox diine it buñ ne woon diine kenn ku ne ni nga ko gisee rek ni nga ko yëgee rek ci sa xol am na ñoo xam ne dañ naan man ni ma yëgee diine ji ni ma ko gisee kenn laaju la ni nga ko yëgee kenn laaju la ni nga ko gisee ndax ni ñu koy doxalee dañ koo tëral ba noppi ne nii lay doxee fii nga war a teg sa tànk lii nga war a def defal lii bul bul def lii loolu mooy diine ji defal lii bàyyi lii kon du ay xalaat xalaat moom buñ ñu bàyyee nit ñi kenn ku ni nga gisee ni nga xalaatee àdduna du dox diina du dox kër sax du dox kër kër sax buñ ko bàyyee ne amul programme ku ne yaay seet nu mu la neexee kër ga ci tas la jëm bu dem société ci tas la jëm bu dem dëkk ci tas la jëm bu dem réew ci tas la jëm ni waxee sax ci ni mu firee te mooy ne te mooy programme mooy maanaam nit kii li muy def dafa war a am programme bu wóor ni ko sëriñ bi defee tërale sëriñ Tuubaa dafa am programme bu leer naññ naññ naññ bu mu tëral ne fii laa jógee fii laa jëm leeral ko nañ ci téere yi mbind yépp lu ci ne leeral na ko xanaa yow mu ñàkk laa leer ak mu ñàkk laa itteel waaye bu ngeen déggee ni mu ko waxee léegi mooy munta ñàkk lépp lu waay di def mu am programme bu leer kër day am programme am réew day am programme mooy constitution bi ñu ci réew ma mooy programme réew mu dafa am lu mu nangu am lu mu nangu sharia diine ji am programme muy sharia bi am lu mu nangu am lu mu nanguwut waaye nit ñi dañoo bëgg a def mutaabaqatul mutaabaqa mutaabaqatul aqli ci lañ bëgg a doxalee seen lëg maanaam lu ne rek sa xel sa xelam bopp yow kenn nii laa ko gisee nii laa ko xalaatee loolu amul fenn ci lenn kon tasawuf doonut fawda ni ko nit ñu bari xalaate doonul anarchie nga xam ne ku ne rek man ni ma gisee sama sama taalibe nii la ab taalibe sëñ Tuubaa ko tëddalal boppam ne nii la ab taalibe di mel nii la war a doxe ah nii lii fii la war a tàmbalee fii la war a jëm lu ci ne leeral na ko ba mu leer nañ xanaa ittiwoo ko ak ñàkk ittiwoo rek ak xam ak ñàkk xam waaw ba mu njëkkee wax daf ne awwalu waajibin alal murid yow loolu dafa am ay waajibaat maanaam ay obligation yoo xam ne da ko war a def lu waay dugg am na programme am na ay warteef yoo xam ne ku ca dugg ku dugg ci ak mbootaay gu mën a doon dañ naan na mbootaay kat am na règlement intérieur règlement intérieur bi lii la bëgg lii lay bañ lii lay bañ diine am na ko diine am na règlement intérieur tariqa am na règlement intérieur lu luy dox ci àdduna rek nañ ko nosee am na règlement boo xam ne danaan ku ci bokk nii ngay doxalee waaye du jàggi nii nga gisee rek kon euh, sëñ Tuubaa bi wax daf ne awwalu waajibin alal muridi ki tuddoo murid ne man laa ci yoonam wi la bokk mu la yoonu ka nag ku ci bokk da ngay tënku ci li ma li ma ni ma ko tëralee yoon wi nag ku ci bokk da ngay tënku ci man mi nga xam ne ma sos yoon wi ci ni ma ko tëralee waaye du caageen yow nga dikk dugg rek dikk di doxale ne sa bopp mi nga xamante ne ni nga ko jitee nga ne ko lan waaw lu ma war a njëkk def mu ne taxsilu zaadihi min al tawxiid demal nga jàng xam-xam bi ñuy wax tawxiid gaa yi di ko tuddee aqida nga jàng ko ba xam ko ndax nga xam kan mooy yàlla ba doo ko jaxasee keneen doo fab keneen teg ko ci palaasam doo fab palaas keneen teg ko ci yàlla loolu xam-xam bii tee bii tax nga man ko moom la ñu aqida demal nga jàng ko ndax lu tax mu wax loolu mooy nit ki bu xasee ba réere yàlla réere na lépp dootu xam dara nit ki bu xasee ba réere yàlla xamu ko melo yi yàlla melo yi waa war ci moom yi jomb ci moom ak yi nga xamante ne moom la ñu wax ci moom yëpp nga war koo xam bu fekkee loolu da nga koo neenal ba xamoo ko maanaam amatul lenn lenn luy leerati ci yow gannaaw loolu leerul leneen du leer te mu mel ni nag ñu bari dañuy defe ne xam nañ ko te xamuñu ñu baree bari aqida ñu bari ñu ngi jàpp ne xam nañ ko te xamuñu ndax boo déggee ci nit ñuy waxee nga xam ne xamuñu boo gisee ci nit ñuy jëfee nga xam ne xamuñu ko te gis neen sëñ bu ñaari baat yoo fonk na ko lool tajdiidul imaan ak tasxeexul aqida ak fonk ñaari kàddu yooyu di wéyal sa pas-pas ak di yeesal sa pas-pas kon pas-pas mën nay wér ba yàgg nga dem ba jaxasoog yeneen ba pas-pas bi dootu wér ndax jaxase nga yeneen ba nga xam ne léegi pas-pas nekkatu fa pas-pas nekkatu fa kon war nga koy léeg-léeg di ko wéral di di jàng aqaayid yi di ko gën a yeesalaat yow mi ko jàngoon nga di ko jàngaat di ko nafar aqaayid nga di ko jàngaat di ko nafar te sëñ bi sonn na ci aqida lool bu ngeen demee téere bu mu bu mu bu bind ñaare boo ko seetloo mbirum aqida dana ca jiitu nekk ca mu di ko fàttali téere yépp nag daanaka ku ko fonk fonk fonk la ñaareel ba it di yeesal sa pas-pas bi léeg-léeg làmb sa pas ndax yow sa pas-pas dëgër na wala dëgërul yolom na wala yolomul ndax fi ne nit ki bu pas-pasam yolomee dootu sawar ci jaamu yàlla da dut gëmati yàlla sax ndax nit ki bu fekkee yow li ngay def maanaam amoo ci lenn loo ci gëm lu may dañ koy def aliyan maanaam da nga koy def automatiquement rek nit ñaa ngi koy def ma di ko def loolu doo ci sawar doo ci sawar muy def te nga xam ne moom daanaka gëmu ci dara nit ñaa ngi koy def ma di waaye amu ci lenn lu ma ci seet amu ci lenn lu ma xool leen rek ci julli da nga gis nit koo xam ne wax dëgg yàlla dana julli dana la wóor ni ci biir julli gi boo ko xoolee xam ne kii aqiidam wérut aqiidaam ci boppam moom wérut moom ndax fonk gi mu war a fonk julli gi jox gi ko war a jox àqam du ko jox mukk da koy def te jóg fi rek da koy def dong te jóg fi daanaa gis boo demee yenn réew yi man damay wax ne ma ne ah am na ñoo xam ne dinañ julli ji ci biir war na sax fu mel ni ma Màkka wala Madina xam nga ñoom dañuy tere bu óori julli jotee dañuy tëj bitig yi dañuy tëj magasin yi kenn du ñemee jaay nga xam ne boo jaayut it boo julli jiwut it bitig boobu dañ koy tëj kon noonu ma def dem julli ji waaye li lay xamal ni kat buñ tëj bitoo bitig ba duñ ñëw mooy day mel ni dañu mel ni picc moo xam ne dañ koo def ci benn kaaf rek mu naan asalaamaaleykum astafurlah doon gis ku ko def dañuy mel ni picc moo xam ne dañ ko dugaloon ci kaaf mu yàkkamtee génn lool nga xam ne moom ko gêné di ko kës néew sañ bañ moo ko fi dugal waaye bu doon doon sañ bañ du dugg ci jàkk ji ngay xam loolu da koy gis te nga gis nitu yàlla yi ñoom dañuy sawar a dikk ci jàkk lool jiitu fa noddu gi am na ñoo xam ne ci nit yi tasawuf yi dañu lay wax ne la am na nangami at yoo xam ne allahu akbar ji noddukat bi di noddu ci biir jàkk ñi la may fekk ñenn ñi di la wax ne la am na nangami at takbiratul ihram musuma raw waaw am ñoo xam ne danañ julli ba noppi bu fekkee amuñu itte lool yuy tax ñu jóg faw foofee ñu toog danañ jox yàlla ci seen dund ak seen temps loo xam ne danañ ko fa def yàgg fa lool mag ñi sax bañ nañ ko balaa ñu daa wax ne li daa wax gone ndaw yi euh, ñu ne ku ku dut ku dut ñaan boo ñaan doo yàgg fa ngay jullee boo wutul sa fan mën naa ba a gudd de wala bu guddee doo bari wala sa mag ñi dañ daal wax loolu gone goo xam ne doo nee doo ñaan doo ñaanlu te fa nga jullee doo fa toog boo guddeewu fan sa wërsëg du bari bu sa wërsëg bare boo wutul doo gudd fan mag ñi ñoo ko daan wax ngir loolu lépp lu ñu jubloon mooy soññ nit ki muy am tuuti jataay bu muy jox yàlla ci fi mu jullee ba noppi waaye rek mel ni picc moo xam ne dañ ko tëj ci kaaf gi rek bu ñuy tëj ci kaaf gi rek mu gaaw naaw génn loolu da nga koy gis ay nit ba xeetu saalixaat sax da ngay jàpp ne duñ ko def ba xeetu saalixaat bi ñuy war a def sax da ngay jàpp ne ndax def nañ ngir yàkkamte dem te jëmuñu woon am na ci ñoo xam ne du jënd nit jàkk ji leen neexul rek kooku jàkk ci bopp moo leen neexul ne fii ne boo demee nelaw rek lañ def wala taxawal duñ def ci dara kon yooyu yëpp dafa bokk ci tasawuf boo gisee ku julli ba noppi mu sant la nga ngay def zikr nga xam ne dañ ko fonk lool ñoom nga xam ne maanaam seen awraad yëpp baax de salaat li ëpp seen wër bi yëpp gannaaw julli lañ koy def boo jullee suba ba noppi boo jullee takkusaan ba noppi seen awraat yëpp wa sabbixuuhu bukratan wa asila waaye ay jooju la ñoom gannaaw buñ jullee suba ba noppi ak gannaaw buñ jullee takkusaan lépp daanaka ci lañ koy def te teew diggante tisbaar yi ak takkusaan yi am na ay salawaat ak i nawaafil yoo xam ne dañ ko ci sopp di ko ci def xanaa amuñu waxtu boo xamante nañ ñaanal nañ ko wala ñu tëdd nekkuñ ci dara amul ndax nit ak dundam dafa bariwul yaa ngi dund li xale yi di wax léegi boo waxee ñu ne man xale laa am na neen luñ koy waxee xaw man xale laa man jeune xaw ma noonu lañ koy waxee mel ni jeunesse bi daal maanaam mbir la moo xam ne moom dañ laa wax ne la dana yàgg waaw waaw wax dëgg yàlla ki nekk xale toll ci digg xelam xelam gën a fi mu gën a amee xel fi mu gën a amee kattan na xam ne kattanam foofu la ko gën a amee fi gën a amee jot bu fekkee foofu joxu fi yàlla dara ci boppam kañ la ko bëgg a jox bu demee ba mënatu gars yi loolu la wax maanaam dem bu ma demee ba màggat boo demee ba màggat dootu mën dara de yàlla boobu boobaa àdduna soxlaatu la diine ku màggat àdduna ci boppam soxlaatu la diine waaw kon nit ki war na bi mu tollee ci ak ndaw shababuka qabla haramika bi nga nekkee xale am kattan foofu la la yàlla soxla fi la àdduna soxla fi la la yàlla soxla yow nga ne fi ma yàlla waroon a soxlaa dama koy jox àdduna ba mu jox ba nga xam ne àdduna soxla moom ma door a fab sama bopp jox ko yàlla bu boobaa la nga bëgg ci yàlla ak la nga bëgg a mën ci yàlla boo ko mën waaw firaaxuka xable suxli fi nga amee jot balaa itte yi adduna yi ñëw xayaatuka xable mawtik sa dund gi bala nga faatu ci diggante yooyu kat képp loola yàlla soxla ci diggante yooyu képp it bala adduna soxla fi nim am na ci ay atti addunaam yoo xam bu ko xasee ba weesu dootu mën a réaliser dara ci àdduna waxuma sax ci diine waaye ci wàllu àdduna rek am na at yoo xam ne boo ci xasee ba egg jeex na nit ki bu xasee ba rëcc ñaar fukki at ak juróom-ñaar waxaane ñaar fukki at ak nit bu ko xasee ba am bu doon jàng te njàng ma tegu ci aw yoon njàng ma war naa noppi ci ni ñu ko séddalee ci wàllu àdduna di séddalee njàng mi ci wàllu tëralinu njànginu jamono boo seetee nit balaa egg ci at yooyu sax dina jàng ba dem université ñaar fukki at naa ne certificat ñaata at lañ ko def certificat ah quatorze nga koy def brevet ñaata at nga koy def ñetti at la defe waaw quatorze ans ak waaw muy ñaata waaw waaw waaw waaw lépp maanaam boo wéeg stage ak bac dix-huit ans nga ci am loolu te loolu dañ koo natt ñoom ba xam ne nit ki na ko teel maanaam lu mu bëgg a def na ko teel a nga am ci baccalauréat defe na ëpp na ko waaye la nga cay teg dem ca université ba ñaata at ñii danañ def ñetti at ñii danañ def ñeenti at ñii danañ def juróom-benni at dañuy jàng yeneen xam-xam yi muy branche ay médecine ak yu mel noonu waaye boo ko setee lépp du ëpp ñaar fukki at ak nag ñaar fukki at ak juróom ñaar fukki at juróom ñaar du ko mu ngoog waaw mu ngoog loolu lépp mënta mat dix neuf ans amoon nañ fi premier ministre boo xam ne jàng na lépp ba noppi ba dem jàngi France ba ñu bisi muy président Abdou Diouf ba bu ñu ne ba nekk gouverneur fanweeri at fanweeri at yi te loolu ba fii mu nekk nii ñu gën a xereñ ci wàllu jàng ci diggante boobu lañ jàng ñu gën ci suñu réew ci wàllu jàng bañ di leen soow boo leen seetee ñu gaaw ak ñu teel a jàng la ñuy doon waaye doonuñ ñoo xam ne dañuy dem ba doon mag door a jug jëm ci jàng waaw ndax mag moom lu mu jàng da koy waaw aji nee na araniya ansa ma taallamtu fi lkibar walastu bi naasin ma taallamtu fi sigar man di seetlu naa bi ma demee ba doon mag lu ma jàng rek fàtte naa ko fii nga gis koo xam ne di tiimu téere di jàng rek waaye bu ñu tëj téere bi boo ko ci laajoon dara xamu dara ndax yeneen soxlaam ci boppam bii yurub téere yeneen soxla yoo xam ne moo gën a moo gën a taxaw ci lii mu jàng ci téere bi loo ko ci laaj fàtte na ko mokkalu ci dara mokkali da koy jëfe lool moo gën a doonee mag mag mokkal di la gën a jëfe moo gën a doonee ndaw mokkal di la gën a yomb moo tax ak taallumu fi sixar ka naqshi fil xajab mbaw li moom loo def ci moom ci at yooyu nga xam ne ci la toll ci jàng moo ko fekk ciment bu tooy xet nga bind ca mu wow ñooyam waaye bu dee mag loo def ci moom moom nga bind ci ngelaw lii ñooyam kat dara ñu xam dara kon ñu gis ne àdduna boo ko jëkkalantewul jëkkalantewoo wàllu yàlla danga dem ba egg foo xam ne dangay ngay gaare ñëpp dootoo xam dara dootoo mën dara du liggéey du jàng du jaamu yàlla wala ku ca egg te nga xam ne ba waxtu wa nga ko waroon def defoo ko ba egg ci li ñuy tuddee retraité retraite du jaageen ko liggéey rek retraité moom mooy nit ku dem ba la nga waroon a man ci sa ngore nga dem nekk mag léegi mënatoo ko waaw ashabaab fi cheikhu sayxuuxatun fi sabab waxambaane mu màggat waxambaane woo xam ne moom wax dëgg yàlla màggat ndax na màggat ñiy dundee lay dundee na màggat ñiy dundee képp lay dundee kon kooka màggat na gone guy dundee na màggat ñiy dundee yaag màggat ñaayam képp màggat nga liggéeyu goo retraite dafa goo dara sa àdduna jeex loolu yàlla na ci yàlla musal te loolu nit a koy teg boppam mooy li ñu doon jàngale ci masalik keroog mooy li ñuy tuddee ak taswif ak tawaani al xafla yett yooyu nga xam ne ku tardé moo la tardé ak taswif sëñ Tuubaa nee na mooy ki nga xam ne lu bëgg a def tey ci suba gi dinaa xaar ba ngoon lu mu war a def ci bis bi naa xaar ba ëllëg waaw yo ngoon gi dafa am loo war a def suba dafa am loo war a def waaw boo boolee li nga waroon def démb ak li nga waroon def barki démb ak li nga war a def tey nga bëgg koo def ci benn bis bi du sotti dara du sotti dara dara dara du sotti te li koy indi mooy li ñuy tuddee ak taswir saw fa saw fa saw fa nangam dinaa ko def nangam dinaa ko def naa xar ba moom la ñu wax ak taswir feebar bu doy waar la te feebar bi ñu ngi gën a bone ci ñuy tuddee alshabab xale yi war jóg te ci ñoom la gën a bëree nag feebar bu bu bu bu mën a yàqal nit ci àdduna ak alaxiraam bi ñu tegu muy tawaani lan mooy tawaani tawaani mooy li nga waroon a mën a def léegi léegi léegi mu sotti léegi ci waxtu loo mën a sottal ci waxtu nga def ko ci juróomi waxtu loo mën a sotti ci benn waxtu nga def ko ci juróomi waxtu loolu mooy tabaan yi nit ñi rek boo tàmbalee lii ba bàyyi dem fee waxtaan kee guddi yàqal la ko ku egsi rek nga wax ak moom lu egsi rek nga bàyyi la nga doon def loolu mooy tabaan yi boo toogee ba yàgg nga ne damaa sonn naa noppal tuuti del si wax loolu bu ko defee loo waroon a def ci waxtu ay waxtu nga koy def loolu mooy at tawaali alxafla nag moom moo ci yées moo nit koo xam ne yëgoo dara sa yoon yow moom mbir mu ne dalay bett rek mbir mu ne dalay bett waxtu julli sax dalay bett waaye amul lenn loo xam ne danga ko waajal doo waajal dara mu xafal moom la arab yi tudde al mu xafal nit koo xam ne jëmoo fenn rek waajaloo dara jëmoo fenn ñett jikko yooyu sëñ Tuubaa wax ci Masaalikul Jinaan bari na lu nu dal ci sunu société moo nu ko teg bari na lu nu dal ci sunu njaboot moo ko teg bari na lu nu sunu wàllu àdduna ñàkk a dox sunu wàllu diine sunu wàllu àdduna la koy tee dox la ca bare bare bari ci ñeen ci feebar yooyu sëñ tudd ci Masaalikul Jinaan moo ko teg waaye nag da ngay nangu ne dangaa feebar nit waa war a toog ba yàgg nag mu am honnêteté bu toll ni xamal boppam ne man damaa feebar neexut ba neexut waaye man damaa feebar kon naa jéem a seet ku ma faj kon naa seet ordonnance bu ma war a jëfandikoo ba faju waaye ku yëgut ne da feebar doo faju da tagg sa bopp rek bu ñu waxee nga ne ah loolu wax ji de xanaa ñeneen na ko moom waaye man weesu na foofu wax ju ñu wax rek nga ne man weesu naa ko te de te jëwugoo demugoo fen kon waxtaan wi sëñ Xaadim def am na solo yàlla na dégg ak topp may nii Sëriñ Tuubaa di jàngale ñu koo dégg te dégg nag lu jafe la ndax am na ñoo xam ne luxal arab yi sëñ Tuubaa ci wolof waxu ci séeréer waxu ci pël ci luxal arab lay wax luxa bu jafe ba wax gaa yi ne leen gaa yi li ma gis ñu ñeme ko ci firi ci wàllu diine te ñemewuñ ko ci wàllu njàngum tubaab bi nga lay jàng kenn ci ñoom koo xam ne ñeme ngaa fab benn livre di ko traduire te yow ci si jëmm boo compétence ruus nga ko ndax boo ko defee gars yi dal ci sa kaw waaw say naw lay daal dal ci sa kaw léegi am na ñoo xam ne sax làkk gi tubaab bi sax duñ ko def ngir maanaam ragal ñu corriger moo tax sax ci Sénégal ñaari ñaari dégg fi lu jafe la am na ñoo xam ne ngir ragal ku leen corrigé dana tax ba duñ dégg benn langue ba ragal ku leen corrigé rek dana tax benn langue duñ ko ñemee wax ndax la moom seen tubaab du anglais yaa ngi ragal sama morom bu ko déggee corrigé bu ko defee naa far noppi rek bu defee kenn du xamal dara may wax may wax loo xam loolu bari na ñoo xam ne looloo leen looloo leen ko da looloo ko teg te te loolu nit loo jéemu doo ko mën fii lenn loo jéemalul sa bopp ci àdduna looy mën amut loo ko amut mun toog gi du di wax ko dañ mën naa am boo boo bañ ko door a jóg di ko def bu ko a naa am sax dañuy rox wala ñu tiit wala ñuy xalaat ne ah fi ma ko waxee de ñu ma daq jàngal foofu ñu may déglu xam nga nit moom bu fekkee yaa ngi lu ne da ko xalaat moom dootoo def dara bu fekkee da ngay xalaat ne ah li may wax boo demee ci ba jàngal loolu la muy déglu ah, waaw ko jàngal bu ñu toppee loolu kenn dootu wax ñu toppee maanaam li may wax nii am na ñu ma gën a xam ba ba man ko wax kon kenn dootu ko wax ndax loolu moom du fi jóg ba foo kulli zi ilmin Ali man nii li may toog di ko wax tey ah sëñ Awa Jaxate nga dee toog moo ma doon jàngal jàngal na moom man nii ak ñeneen wala na ko wàlla dolli leer dolli ko itam fanu gudd ndax sonn na lool ci jàng ak jàngale moo tax dëgg yàlla dañoo gàtt lu rek de waaye li nu war ci suñu digganteeg moom tàmbalee guñ ko sax waxuma laa di ci waaye nag léegi ñu bàyyi ko xel léegi ñu fàttali kon nit ki wër ne rek lii diw sàngam mi ko man mu ngi may déglu ba man rus naa di wax ci kanam ndax loolu du fi jóg kenn rek mooy koo xam ne li muy wax moo ko gën a xam ñëpp moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp keneen ku mën a doon ba foofu kulli di alimin alim wala ba na ci yow amul kenn kuy wax te ña gën a xam nekku nekkuñ di la déglu waaw ah, amul ndax ci dem ba moom réew mi sax yilif réew mi ci kaw xam-xam professeur yi ko doon jàngal ci université ñu professeur yi ko doon jàngal ci université ña nga toog di ko déglu waaye teekat mu dirigé réew mi ma rek man ñi ma doon jàngal ñi ngi fi kon man nan la ma wan fit laa war a mën a am bay dem bay yenu réew mi wala mu di ko loolu lépp ay wàññiku la ak uyub yu nekk ci doomu aadama yoo xam ne tànk mi ngi nekk ci moom fexe ba am li ñuy wax du mën a fexe ba mën a def dara ay ay tënk la yuy tënk doomu aadama ba nga xam ne moom du jéem dara li sëñ xaari boobu si ne doon wax léegi ne sëñ Tuubaa lu mu am ci àdduna loolu ko may mooy jombalewul boppam dara sëñ Tuubaa jombalewul boppam dara dara lu yàlla am waaw lu yàlla am rek jàpp na ne war naa mën a tàllal loxoom ñaan ko suñu borom looloo tax li ko li am mu am ko ku munta egg ci moom it bul jàmbale sa bopp dara lu yàlla maye yow itam jàppal ne lépp lu mën ab jaamam boo ko ko ñaanee ko yàlla mën na la ko may waaye dem ba egg ci jàpp ne man ah alfadlu lil mutaqaddimi alfadlu lil mutaqaddimi am nañu ko am na ñoo xam ne foofu lañ ne de yii gaa yu baax yi jiitu woon kenn dootu leen dab gaa baax yi jiitu woon kenn du leen dab sëñ Tuubaa weddi na loolu moom weddi na ko de fa pallu qad yabdu amaama al wabli wal fadlu lil waabili laa li talli sëñ Tuubaa weddi na waxu nee na da taw de wis wisal yi jiitu mooy jiitu waaye nag njariñul njariñ la dëgg dëgg mooy waame ba nga ne mooy jub gannaaw waaw waaw daan la nag euh, fàttalikul xadis yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mu wax ne xadi kal matar laa yurafu awaluha xaw am axira xayr kenn xamul bu ñu njëkk ñoo ñoo gën wala ñu mujj ñee gën boo bëggee ya boo bëggee am xafla rek ne yàgg ci rek ngir ne li fi ne woon kenn mënatu def lu ko gën rek fàttalikul xadis boobu kon mbokk yi loolu bokk na ci li liñ doon saraa ci waxtaanu sëñ Xaadim si luy yàlla nu yàlla defal dégg ak topp Euh, fe nu yàlla may nu fax ak dégg fax lu am solo la jàng baax na lool waaye kuy jàng te doo am fax mu ci sa bopp boo doo mën a jëriñ sa bopp ma laa di jëriñ keneen kon nañu fexe ba euh, duruus yi nga xam ne moom la ñuy joxe bis bu set nañ fexe bis bu ne kenn ku ne jàpp ne yaa ngi koy door a jàng man de wax dëgg yàlla ñi fiy dikk di jàngale dama leen sant gërëm leen baax saa bu ma leen gisee surtout sama doom yu ndaw yi nga xam ne samay doom la ñoo samay jabaat ma gis leen ñuy toog ci plateau bi fii di jàngale ñoom sëñ Mbàkke ñoom ñii ak ñu nu mel nga xam ne ñoom ñëpp samay moromi doom lañu di samay doom ni ñoom waaye bu ma leen gisee sama xol day sedd bi ma am it yaakaar sama xol day sedd ma am yaakaar ci ne ñii de ëllëg ci si biir danañ jël drapeau bi bu demee ba mag ñi mënatuñ ñii danañ ko jël yóbbu ko foo xam sax mag ñi yóbbuñ ko fa yàlla ko yàlla defal kon loolu itam day tax nit ñu am yaakaar waaw mag la koy tax am yaakaar mooy mu gis ndaw ñi di góor góorlu ci lam nekkoon ba mu wóor ko ne ci dundam balaa génn àdduna gis na yaakaar joo xam ne xam na ne bu demee nekkatu fa it lam nekkoon day wéy ba faw waaw loolu yonent yi ñaan nañ ko gis ngeen yonent yi wa min zurriyati lu ñu ñaan yàlla ne ah yàlla defal suñu njaboot waaw sëñ Tuubaa zurriyatan tayyibatan kenn ku baax ku ñaanut yàlla sa njaboot la nga doon def bu liggéey ñu fab ko wéyal ba faw amut du ci yonent du ci wàll yi du ci am biyaw yi ñëpp ndax kenn bëggul li nga doon def bis boo génnee àdduna mu yem déedéet dangaa dugg mu wéy ba faw yool ba dina fekk ci sa fa nga nekk ci sa bàmmeel leer li nga doon def yool ba dana la fekk ci sa biir bàmmeel waaye in qataa amaluhu jooju yonent bi wax waaye def na nag am na ñetti nit bu fekkee ne bàyyi nga ko fa sa jëf day day wéy doom ju baax ju lay ñaanal yàlla di def lu baax yàlla di ko fay waaye dala ciy jox sa wàll te muy def ndax yàgg ko jàngal ak sadaqa jaariya waaw mooy li ñuy tuddee wax te danañ ci waxtaan da ngeen fexe ba tonk boobu ba weeru koor wee jeex nañ ci wut mawdoo ndax lu am solo la waqf ndax fi mu ne projet yi lislaam yi nga di gis ak daara yeeg jumaa yeeg ñoom ji ñoom xam-xam ak yëpp li ko tee dox mooy dañoo amul moyen yi nga xam ne moom lañu war a am ngir mën a wéyal projet yooyu te projet yi li koy tax a mën a wéy fokk fokk boobu ñuy wax wax ci lislaam nit ñi xam ko ba di ko jëfandikoo mooy sadaqa jaariya tabax kër ñu di ko luye waaye lu ca nekk ci alal ji mi ngi jëm si waat ci projet yi lislaam yi mi ngi jëm ci daara yi mi ngi jëm ci jàkk yi mi ngi jëm ci luy dundal xam-xam mi ngi jëm ci luy dimbali miskin yi ak foqaraaw yi ndax nit mën nay am alal waaye alal ji mënoo garanti ne day wéy ba faaw nga di ci def bu baax waaye mënoo garanti ne loolu alal ji day wéy ba faaw sababtu na fi jamono daa bëri ko waaye yaa ngi koy defit boo faatoo moo garanti ni alal ja ña la la nga ci soxla woon ak la nga ci doon def danañ continuer ñoom di ko def loolu moo waral charia al islam yi indi li ñu tuddee waqf jëlee ko ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax as-sadaqa al-jaariya mu nekk loo xam ne ñi nga xam ne yàlla may na leen mën-mën seen loxo jot seen poche war nañu koo bàyyi xel te kat wax fu kenn ku ne fa nga toll mën nga ko faa Sénégal ba mu daj ndar lañ gisoon ay jamono yoo xam ne amoon na waqf fu ba defe naa waa kër Ahmad Quraysh ñoo ko defoon nga xam ne dañ fa defoon ay néeg yoo xam ne dañ koo def waqf képp kuy ab doxandéem bu dikk ci ndar fekk booba ndar nit ñëpp dañ fay dem moo doon capital Sénégal bi ñu dafa am soxla te léegi nga gis koo xam ne dafay dem waaye ndeysaan du mën a fa hôtel te dafa am mbokk mu mën a dal ñu ñu wut ay néeg yoo xam ne koo xam ne ñëw nga fa te amoo foo dal ñu ne la fii mën nga fee am benn fan wala ñaari fan wala mën nga fee nekk ba lijjanti li ngay lijjanti loola lu am solo wala loolu kooku façon la ci wax wax danañ ci gën a leeral léegi sëñ Mbàkke na ngeen fexe ba def benn conférence boo xam ne def baax ci wàllu wax ba nit ñi ñu gën leen koo leeral am na ñoo xam dañ koo xamul waaye buñ ko xamoon danañ ko def ndax fi mu yii ñuy def yëpp muy suñu daara yi nga xam ne ñu ngi am ay jafe-jafe suñu njàngam diine mii am jafe-jafe yalwaan ñii nga xam ne moom la ñuy wax mu nekk ci biir réew ñu naan yalwaan yalwaan yalwaan bi bu wax fa amoon te ñu ko mu jeex bu ñu ko doon def te def ko nañ ko war a mu jeex defe naa état bi sax mu ngi ci euh, am na lu ci tàmbali waaye nag wax fa moom ñi ko mën a yor dëgg mooy population bi ci boppam ñoo ko mën a defal seen bopp gis ngeen ci réewu lislaam yi nga xam ne am na fa day dem ba day baree bari ba ñu wutal ko ministère bu koy gérer day bari ba ñu wutal ko ministère bu koy gérer Maroc gii nu gën a jege bari na fa lool Égypte bari na fa lool Arabie Saoudite bari na fa lool wasirul awqaaf wa shu'un al islamiyya la ministre bi bi nga xam ne mboolem lu aju ci wàllu waqf ci ko li koy gérer bu njëkk nit ñi ko daan gérer seen bopp waaye dañoo dem ba mu bari ba état ya bi teg ci loxo moom di ko gérer bopp maanaam fu ñu waxee wasiru wasiru suun islamiya wasiru awqaaf la ñuy wax wa suun islamiya moo koy géré war naa am ci suñu réew mi yàlla yàlla def te loolu it dafa nit ñi rek waaye nit ñi àttan nañoo def lu baax lu ne waaye nag daf leen leerul ni ñu ko war a defee bu yàggul rek maa ngi ciy waxtaan ak man mbokk mu ne ma man de lii bu ma ko xamoon bu yàgg laa ko defoon mais ni mbokk moo xam ne wax dëgg yàlla nee ma moom du yàgg nga gis loolu ma jëm ci ndax man dama ko xamutoon ndax li may def par at di ko joxe ci sama alal wax dëgg yàlla mën naa ci def waaw ni ñu koy doxalee ak niñ koy gérer rek laa xam leeral naa ko ci la ma xam lépp te yaakaar naa ne loolu dana am bu xasee ba am ci kenn ñeneen danañ ko roy ñeneen danañ ko roy dana yaatu ba réew mépp danañ ko mën def te kon dana régler problème yu bare bare bare asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Moustapha ci waxtaan wu am solo bu ko defee sant bu baax ñi nga xam ne ñoo doon amal waxtaan bi docteur Khadim si yoon dañuy ñëw rek ci fi waaj ci ay laaj dañuy ñëw rek ci fi waaj ci ay laaj kii day laaj taw amul pasma waaw sar ci alxuraan li ñuy xàmmee ne saar wi jar na saal wi ci topp bismillah rahmaan rahim ko waral olama yi nga xam ne ñooy toppatoo ulumul quraan dañoo wax ne ci suuratu naml rek moo bokk ci alquraan bismillahi rahmaani rahim allah taalu alayya waatuni muslimin yeneen yi ci des yëpp dafa teqale diggante saar yi waaye bokkul ci saar bi yeneen daa teqale diggante saar yi waaye bu ñuy lim saar bi aay yi duñ ko ci boole diggante Ali Imran Nisaa Maa'ida Al-An'aam Al-A'raaf Tawba lanfaal tawba diggante lanfaal ak tawba lañ xamul tawba daa bokk ci lanfaal wala de wala saaru boppam ñii dajale alquran wóoru leen maa tax defuñu fa bismillahi rek lu tax ndax mën naa jël wirdu maxfuus lu tax ma man ndax mën naa ci lu ndigal déedéet bil izni ndigal rek moo man mboolem mboolem asar yi yëpp sax boo koy jël nga am ci ndigal moo gën donte mën nga koo jël te amoo ndigal waaye nag wér du ma wu mu mën a doon moo xam mahfus la moo xam weneen wu mu mën a doon ci àdduna moom faw illa baada al izn sëñ Tuubaa loolu la wax asxab ci tarixa loolu la wax nag laaj na ko ndax mënees na ko jëfandikoo te doo am ndigal li mu ne mënees na koo jëfandikoo waaye boo ko jëfandikoo lañ ci diggee ci njariñ yi nga ci war a am doo ko ci am même ci turu yàlla yi itam sax laaj nañ ko ci moom sañ bi ne ko am na turu yàlla yoo xam ne ndax mën nga koo jëfandikoo ci rek gis ko ci téere di ko jëfandikoo mu ne ah da ca mën a am de xaw na si diggante ak sa borom waaye lañ diggee ca tuga faw nga jëlee ko ci koo xamante ne da la ci jox ndigal moo ci jërëjëf waaye bu dul maaxus moom jumaa yi Ndakaaru dañu egsee ci wérdul maaxus conférence bi nga moom lañ ca def nit ñu bari laaj yi ñëw na ci lu bari ba ñu ne ah loola kat ba dañ caa mën a wax dara dañ ciy laaj xalifa bi Cheikh Mamadou Mountakha keroog ci bis bi nga xamante ne ci lañ ko wax sëriñ bi dafa def benn audio moom ci boppam ñu teg ko ci nit ñëpp dégg ko mu ne maanaam ñu fi ñu am moom na ba noppi kon jox na ko ñu fi nekk yëpp kenn ku ne it mën nga koo joxaat ña nga xam ne buñ la ko laajee mën nga ko moom loo xam ne da xëy rek di ko fekk ñu ko bàyyi rek nga yam di ko jëfandikoo déedéet faw nga dem ci koo xam ne jox nañ ko ko mu di ko jëfandikoo te jox nañ ko digalul mu joxe ko loolu it nañ ko ci bàyyi xel waaw ñu rek man maa ngi wérul maaxuus rek man sañ naa koo joxe de déedéet maanaam da koy jënd ko ba noppi am ndigalul sañ ko jox. jërëjëf sëñ Moustapha ci tontu boobu su mel dañ ci laaj produit bi rek ci ci li lu mel ni université bi suñ mën loolu mu mën a am wax ah wax la moom ñu ko def sax loolu ci fay ko dara liggéeyal ko julliti ngir jëm yàlla képp tax mu di ko def liggéeyal ko jullit yi ngir gëm yàlla képp mu am ci ñu tuwaaba suñu boroom fay ko sëñ waaw gërëm ko loolu dong nga ci yéene leneen nag waaw kon waaw moom bibliothèque bi wàqfu la sëñ bi bu ñu ko liggéeyee ba noppi mi ngi da ko fee bàyyi jullit yéeg taalibe yéeg kus képp koo xam ne sa itte mi ngi la waaw beneen wax maanaam loo xam ne daal la cay dugg ci xaalis day jëm si waat ci université ah kay nit mën naa def tey jii benn immeuble bu r er, euh, maanaam plus trois plus quatre plus dix ne léegi kat def naa ko ay appartement dama koy loué waaye li ciy génn ci xaalis lépp na jëm ci université bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha bii loolu nit mën na ko def te loolu lu am solo la ndax fi mu ne université dafa laaj ay moyens yu bari ndax moom bu jàkk jàkk boo ko tabaxee ba noppi jeex dañ koy julli waaye <laughs> université nag bi nga tabaxee ba noppi tabax gi moo gën a ci li nga xam ne moom la laaj ndax la ba faw at mu jot budget bi day at mu jot frais yi mu jot day gën a jëm loolu nag moo gën a aajowoo kon waqf bi ñuy wax moo gën a aajowoo yëpp tey jii ku mën a tabax kër boo ko tabaxee ba noppi ne lu koy génnee nañ ko jox université loolu yi day benn liggéey benn addiye gën a rëy te loolu ndax day sax di wéy ba faw loolu lu am solo kon loolu it ñi nga xam ne am nañ mën-mën nañ ci bàyyi xel ñaareel bët noonu itam mënees na koo def ci daara yi man kat tànn naa nangami daara bu ma mënut daara yi ci senegal yëpp it tàmm naa nangami daara lu ma am lii sama alal ji liñ ciy liggéey li ciy génnee dañ koy yóbbu ci daara sàngam ak daara sàngam ak daara sàngam waaw lii may am ci alal tam nañ ko jox ñuy jàng xam-xam képp koo xam ne dem nga bay jàng xam-xam aajowoo sa xam-xam nga war koo yokk benn nga war a dem bitim réew wala nga war a am bourse lii nañ ci génne luñ la war a mën a jox at mu ne fukki bourse yoo xamante ne dañ ko mën a génne loolu def naa ko wax bu muy dund ak bu ma nekkul ci at bu yooyu yëpp ay aw xaaf la yoo xamante ne ay mën mën nekk ku defoon waqf tey jii jëmale ko ci liggéeyam lu Mouhamadou Mountakha bi yaa xabaza kon mu nekk lu am solo lool. jërëjëf sëñ Moustapha ci leeral yu am solo yooyu naa dañ leen sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax tamit ñi nga xam ne ñoo ko doon jàllale mel ni Touba Vision mi ko def en direct fii ci maktab bi Bichri TV ak Al Khadimiyyah dañu lay fàttali programme suba bi muy turus ci ba koy ànd ak suñu Moustapha Diakhaté ci téere bii di Masaalikul Jinaan kon dañ jox suñu Mbàkke rek mu tëb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 leeral yu am solo yi nga xam ne indiwaat nga ko dofal ko ci waxtaan wi nga xam ne sëriñ Xaadim la doon na ko def yaakaar naa képp ku ko déglu danga ci jële ay bind waaye fi nga ko daaneele am solo lool tomb bi nga xam ne moom nga ko daaneele muy waqfu muy baaje ci wolof lim ci wax mooy li ci am ñu bari day mel dañ koo umpale xamuñu ko dëgg-dëgg rawatina yenn ci borom alal yi ndax am na ci ñoo xam te ni li ñuy génnee di ko joxe xëy na ñàkk xam waqfu moo tax jëmelewuñ ko ci barab yu mel noon loolu nag buñ ko jëlee def ko ab tomb waxtaane ko leeral li ci aju jàpp naa ne procès yu bëree bari yi nekk ci kanam te yoonu murit di ko taxawu xëy na mën naa tijji bunt yu bëree bari ndax jaamia bi sëriñ Muntaxa naal ñi ngi ñaan mu àggale ko faw procès yu mel noonu day ànd ak moom man koo gunge ndax lim laaj ci financement ak lim laaj ci xaalis dana bari lool kon ñu ngi koy sant bu baax ci proposition bu am solo boobu nga xam ne indi indi na ko di ko santaatit ci xëy na ñaax ak soñ yoo xam ne mi ngi koy soññ mbooleem ndaw ñi nga xam ne ñi ngi jug di jéem a gëstu xam-xam ak jéem a jaar ci yoon wi nga xam ne ci la mag ñi jaaroon loolu moom ndaw ñi yéen lañ ci war a sant yéen suñu waajur yi nga xam ne yéen a xàll yoon wi ba ndaw ñu man cee jaar ndax xëy na am na nu doon demee ndaw ñu bëree bëri duñ ñamee taxaw di yor ay micro di wax ci kanamu mbooloo waaye gis nañ seeni waajur yoo xam ne ñi ngi ci tool bi di ci bay seen waar dem nañ sax ba am ci ñoo xamante nii seeni at mayeetu leen ko waaye bëgg a nit ñi moo tax ñu nekk ci toujours kon loolu dañuy ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa gën leen a sàmm gën leen a aar ba yéene ji nga xam ne am ngeen ko ci tasaare xam-xam ngeen eggale ko te ndaw ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci suuf ngeen ñaanal leen ñoom it ñu jaar ci yoon bi nga xam ne ci ngeen jaaroon ba xëy na mën a def li ngeen def ba buñ mënta def li ngeen defit ñu def lu ko xaw a jege ñu ngi sant mbokk yi bu baax di sant waa Touba Vision bi nga xam ne ñu ngi ko doon jàllale en direct di sant tamit waa Alxadimiya ak waa Bisri TV di sant Sëriñ Fàllu Njaay mi nga xam ne moo doon ubbi jataay bi même tëjaat ko ci question yu am solo yooyu nga xam ne indi na ko di sant mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi xam naa suba sëñ Moustapha mooy war a ñëw àndaat ak ñun ci téereb Sëriñ Tuubaa boobu di Masaalikul Jinaan ngir eggale fa nga xam ne fa lañ yemoon kon dañ koy jox mu ñaan ñu yeewi ko ba suba insha allahu taala